wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa asxaabihi altayibin altahirin algurri almayamin wa radiallahu an cheikhina altijani wa an jamici xulafaihi wa ahli tariqatihi bokki jullit yi bokki déglukat yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam dellu neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen uh, émission kalimatul xaq ànd ak uh, seen xarit Ahmed Samb uh, tabaarakallahu mbokk yi balaa ñoo dugg ci waxtaan wi rek dafa am benn yëgle bu nga xamante ni bëggoon nañ ko fi jàllale e, ndax daf di xew-xewu diine e, soxna suñuy wax e, Mareetu ja Mareetu ja ak Mam gis Si ñooy yëgal mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samdi ci juróom-ñetti fan ci weer wi ñu nekk di weeru mai ci waxtu trois heures ci palaasu jàkk jibisaar ca pikin dafa am waxtaanu diine wuñ fa war a waxtaane euh, thème ba nag moo di warugalu xale warugaru xale ci ay waajuram naka la xale war a toppee ay waajuram ba mën a am barke ak itam musiba bi nekk ci ñàkk julli loolu mooy lañ fa war a waxtaane ki nga xamante ni nag mooy def waxtaan bi moo di Cheikh Ahmed Tijani Ndaw ci rajo Dunia kon soxna Mareetu Ja ak maam bi si ñooy woo mbokk yeeg xarit yeeg soppe yi samedi juróom-ñetti fan ci weeru mai ci waxtu 3 heures ci place su jàkka ji bi Sarr ca Pikine ñu ngi fay waxtaanee warugaru xale ci ay waajuram ak musiba bi nekk ci ñàkk julli kon tabaarakallaahu ñu ngi ciy woo ñëpp soppe yeeg xarit yeeg ñëpp ñu ngi leen ciy woo moo mel ni kon suba la tabaarakallaahu mbokk yi tey dañu war a waxtaan ci wàllu ak cant maanaa jaam bi xéewal gu rëy gi ko yàlla defal ci mu ñaan ko loolu ak cant war na ca bawo nit ki sant yàlla ci bunt bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamante ni lu mu taq-taq lu mu tilim-tilim lu mu sori-sori yàlla su ne allahuma yàlla déglu ko ñaan nga nag moo xam da ñaan wër wala da ñaan di jéggulu wala da ñaan di tuub wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeeku yépp xewal la gu jaam bi war a sante boromam bu ñu delloo ci alquran ak sunna dinañu gis borom bi subhaanahu wa taala e, dinu baaxe ay xeetu ñaan yu rëy yu nga xam ne ay yonent ñoo ko daan def wala ay nit ñu baax mu def ko ci biir alquran bi pour jullit ñi mën ko jariñoo yonent bi sallallahu alayhi wa na adduaa huwa al ibaada nee na ca dëgg-dëgg daal ak jaamu moo di ñaan kon kii ñaan mu ngi jaamu yàlla mu mel ni itam adduaa muxul ibaada yonent bi moo ko wax nee na nee na ñaan moo di yuuru yuuru jaamu yàlla waaw kii jaamu yàlla te du ñaan jaamu yàlla am nga dafay daldi vide ndax yax balaa dëgër am yokk bopp itam balaa am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yàlla moo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum mënti doon ci xeetu jaamu yi bu amul ñaan dafay vide borom bi subhanahu wa wax na ci alquran ni wa qaala rabbuku rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an daaxirin mu mel ne aaya bi danga ko seetantalee da gis ne ak jaamu yàlla moo di ñaan yàlla nee na e, waxal maanaa waxal ne seen boroom te moo di yàlla nee na ngeen ñaan ko yéen jaam yi mu nangul leen ndax ñi nga xamante ni ñu ngi rëy rëylu di bañ di ñaan yàlla ëllëg danañu dugg safaraw jahannam kon daanaka ki ñaanul yàlla yàlla gërëmu ko ki dul ñaan mooy ki nar a texeti ndax dañ ne yàlla bu la bëggee may xiir la ci nga ñaan ko yàlla mooy buur bu barkeel bi mooy kiy dund te tedd mooy ki am kersa ci jaamam bi yëkkati loxoom di ko ñaan yàlla mooy kii am kersa bàyyi loxo jaamam di dellu te defu ca dara waaw yàlla bu ko jaamam tàllalee loxo di ko ñaan am na kersa jaam bi yëkkati loxoom delloo ko te yàlla tegu ca dara moo tax ku ñaan yàlla may la moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax nee na ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qatia wala qatiatu rahimin illa a'taahu llahu biha ihda thalathin nee na amul benn jullit bu nga xam ne tàllal na loxoom di ñaan yàlla te ñaan nga ak dog mbokk nekku ca nee na lu dul ba yàlla te ñaan nga itam bàkkaar amu ca lu dul ba yàlla may na ko la mu ñaan waaye nag benn mu maye ko ci ñetti façon yi ndax léeg-léeg nit ñaan yàlla may ko ci saasi loolu gis nañ ko ba tay léeg-léeg itam nit ñaan yàlla dencal ko ko ba ëllëg te du ko yëg kooku su gaawtoo sax dana wax ne man yàlla daf ma faalewul ñaan naa bay bëgg a dee waaye gisuma dara fekk kooku la mu doon ñaan yépp yàlla daf ko ko dencal bu ëllëgee ay tiyaaba la koy la ko la koy def jox ko ko te loolu mën naa jur àjjanaam mën na jur itam ci moom ngërëmul yàlla wala léeg-léeg nit ñaan maanaa da gis koo xam ne dafa am problème mu kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waaye yàlla mayu ko kër lu tax amaana amoon na doomam bu waroon a faatu te xëy na su ko yàlla mayee kër dana faat doomam jooju te doomam ji la gën a bëgg kër yàlla bàyyi doomam mu dund mu xañ ko kër bari na itam koo xam ne mu ngi ñaan alal te yàlla xam na ni bu ko mayee alal itam dana ko teg feebar mu xañ ko alal ji te may ko wér yooyu yëpp ay xikam la yoo xam ne dafa làqu xamuñ ci dara su ko defee léeg nga ñaan la nga doon ñaan yàlla wëlbati ko mu doon leneen yaa ngi ñaan alal yàlla def ko mu di ak wér ci yow ndax danga naroon a wéradi yaa ngi ñaan yàlla nangu na ko waaye dafa la koo dencal te yëguloo ko ñaan nga soob na yàlla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko léegi moo tax nit bu ñaanee ñaan yi ci ñetti façon yi rekk lay ame ba tax na kon jaam bi mën naa wax waxam teggeeku waaye yàlla boo waxee waxam du teggeeku te nee na ñaan leen ma ma may leen moo tax ñu ne borom bi subhanahu wax na ne am na ay tur yu rafet su ngeen ma dee ñaan na ngeen ma ñaane tur yooyu waaw walillahi al asmaau alxusna fadcuuhu biha wa daru alladina yulxiduuna fi asmaa'ihi sa yujzawna ma kaanu yacmaluun tuuri yàlla yi nag mokkal ko sax dafa am solo bokk na ci allah bokk na ci al bokk na ci al ak al zaahiru ak al baatinu ak al aliyu ak al ala ak al mutaali al azim al majid al kabiru al samiu al basiru al alimu al xabiru al xamidu al azizu al qadiru al qadiru al muqtadiru al qawiyu al matinu al ganiyu al xakimu al xalimu al afuwu al gafuru al gafaru al tawaabu الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهادي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم alraufu alfataaxu alraziqu alrazaqu alxayu alqayuumu alrabu almaliku almaliku alwaxidu alaxadu almutakabiru alxaaliqu alxalaaqu albaariu almusawiru almuminu almuhayminu almuxiitu almuqiitu alwakiilu alkaafi alwaasicu alxaqu aljamiilu alrafiiqu al الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض yépp ay turi yàlla lanu boo ci ñaane yàlla rekk yàlla may la kon walillahi al asmaul husna am na ñu ko gëstu ba xam mbóot ya lu ñu ci rek yàlla wuyu kon tur yooyu yépp yàlla ñu ko baaxe pour bëgg a jëflanteeg ñun ci taraanga jëflanteeg ñun ci ak njëkk ñaan am na ay teggin tegginu ñaan moo di nga dogu ci boo dee ñaan takku ca am kóolute ci ne li nga ñaan yàlla nangu na ko waaw ñaan yàlla ba pare di ñaaw njortu nag ci ne li nga ñaan yàlla nanguwu ko yàlla nee na maa ngi ci njortu jaam bi fu ma jorte rek fa laa nekk kon nag boo dee ñaan nang ca dogu am ca kóolute ci ne yàlla nangu na sa ñaan bokk na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddee xudurul qalb nga fexe ba boo dee ñaan nga fexe ba sa xol teewlu li ngay ñaan bokk na ci tegginu ñaan yi te moo di discipline ñaan nga commencé sant yàlla waaw boo dee commencé ñaan na nga ubbee alhamdulillah na nga sant yàlla tagg ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu danañu ko ubbee ñaan ñaan nga ko ubbee yàlla dina ko nangu ci mbaaxam ba ca topp itam moo di ak sellal boo dee ñaan nanga nga sellal sellal dafa bokk ci disciplinu ñaan yi bugg ñu itam boo dee ñaan di yëkkati sa baat ca kaw di tànqal nit ñi ki ngay woo dégg na la soriwu la te moo di yàlla kon boo ko dee ñaan wax ci kaw baax na waaye njistal mën na caa am kon nag defal bi nga xam ne njistal mucc na ca te moo di nga yellu ko loolu la ñu bëgg nga yellu ko ah xanaa bopp nit ñi bari nañu te foog nga yëkkati sa baat ñu xam li ngay wax pour di mën a wax amiin ndax amiin dafa bokk ci ñaan kon su boobaa mën ngaa yëkkati sa baat nit ñi dégg ko ndax soo ne allahuma nangam ñoom ñu ne amiin amiin jooju dafay dëgëral ñaan gi pour yàlla nangu ko waaye lu dul loolu nag suufeel sabaat moo ca gën ndax mu mucc ci loolu ñuy tuddee njistal bokk na ci discipline ñaan li ñuy tuddee al itiraafu bi danb maanaa mag ñi dañ ko daan def suñu dee ñaan yàlla dañuy reconnaître seenu mbon ak seeni taq-taq ak seeni bàkkaar donte sax ñoom sori nañu bàkkaar waaye danañu ñaane noonu ndax dafa bokk ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yàlla di fëgg sa dënn ne baa maa baax danga naan kay yàlla maa bon maa yées yow yaay ki baax yaay ki nga xamante ni soo jëflanteek man ci sag mbaax la rek ne man yeyu sax ngay jëflanteeg man ci lu baax ndax sama mbon waaw mu mel ni E mag ñi suñu dañ di ñaane loolu gis nga boo demee ci taysiir Sidi Hajj Maalik Si mu ngi wax ne abdun dalilun faqirun xaashiun wajilun du jadain asifun yallahu yallahu mu ngay dem bay wax ne tamawaja albaxru baxru dambi ya thiqati wa innani rabbi xiftu lgarqa yallahu yooyu yëpp façon yi tuuteel tuutil seen bopp la mais nag dafa bokk ci discipline ñaan yi waaye du ñoom dañoo tuuti dañoo am bàkkaar ndax sori nañu loolu mu mel ni kon soo dee ñaan na nga jéggalu yàlla ba noppi li ñuy tuddee at taxalli qabla taxalli da ngay summeeku maanaam dangay sangu ba set soo a solu kon jéggalul yàlla say bàkkaar wan ko ne ko dama taq ab jaam la bu la yàlla jéggalee nag nga set wicc mu jul mbubb ngërëmam solal ba ca topp itam moo di nga reconnaître njëkku yàlla sant ko ci xéewal yim la defal kon jéggalul waaye itam santal yàlla ba ca topp itam ci discipline yi moo di li ñuy tuddee ab tadarru wal xushuu maanaa nga toroxlu suufeel sa bopp ci kanamu yàlla mel ni soldaar bu gis kilifaam te sax gën a suufe soldaar boobu gën ko torox torox maanaam gën a toroxlu sax soldaar boobu ci sa diggante ak sa borom ndax soldaar bi moroomu nitam la gis te yow nag sa borom bi nga xam ne dara melul ni moom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemmemteef ci moom bëgg yàlla waaw yàlla boo koy ñaan na nga suufeel sa bopp waaye nag na nga bëgg yàlla xam ne ki nga taxaw ci kanamam moo gën ñépp moo gën a baax waajur ci doom moo gën a baax jëkkër ju nopp soxnaam te bëgg ko ki nga taxaw ci wetam moo ëpp yërmande jëkkër ju baax moo ëpp yërmande waajur bu baax kon yàlla moomu moo dàq ñépp moo gën a rafet loo mënti gis kooku soo taxawee ci kanamam dangay ngay yëg ci sa xol ne taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetaay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku baax koo xam ne ak mbaxaayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu rëy loo xamante ni dara réyul ci kanamam su boobaa nag soo amee xaalu toroxlu boobu loo ñaan yàlla mu nangu ko bëgg na nitam bokk na ci discipline yi li ñuy tuddee njàpp su fekkente ne jàppandi na soo njàpp jàppandee baax na ci ñaan ndax ndax yàlla jàkkaarloog jaamam mu laab jaam bi ne allahumma bëtu yàlla ba dana sedd mu mel nii bokk na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yàlla nga fexe ba la ngay dunde lew nga bañ a dunde lu xaraam waaw bu fekkee yére yi nga sol ah, yaa ngi ko gañee ci kart ci kart nga jënde yére ndax danga jënd tabarkalla ab billet boo xamante ni ci pay mi nga ko jënde wala lu demee ni tabarkalla pay mi Eh, jënd ci mbubb jënd ci oto tabax ci kër sarse ci say magasin ba mu feeñ fees jënd ci dawlin jënd ci tabaarkàlla yooyu yépp di lu xaraam lu la wër boo nee allahuma itam yàlla du moyu la waaw yàlla boo ko dee ñaan dafa bokk ci discipline yi nga dunde lu lew sol lu lew dëkk fu lew bokk na ci discipline yi jublu xibla boo dee ñaan nga jublu xibla bokk na ci discipline yi itam boo dee ñaan nga yëkkati sa loxo yonent bi daf daan yëkkëti loxoom bu daan ñaan yàlla bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi yàlla maa ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu rëy yi moo xam darajay tur bi ñuy wax allah la wala darajay tur bi ñuy wax latif la tëgg nañu ci ay façon ñaaniin yoo xamante ni ay tawassulaat la yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaullahi alxusna wala nga def walla boog nga def tawassul ci yonent bi na waxtu yoo xam ne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yooyu ndax waxtu yooyu dafa nekk saatul ijaaba waxtu la yoo xam ne ku ca ñaan yàlla yàlla nangu ko bokk na ci waxtu yooyu moo di waxtu wi ngay julli ndax ci biir julli am na barab yoo xamante ni may neen la nga ñaan fa lu demee ni ki boo dee taaya taaya bu mu ba soo taayaa ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex soo noppee nag mën ngaa dugal foofu say ñaan waaw foofu gannaaw boo taayaa julli ci yonent bi mën nga faa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki noonu itam waxtu wi nga sujjootee ci julli mën ngaa ñaan say aajo barab yooyu barabu ijaaba la boo fa ñaanee yàlla mën na ko nangu niki noonu itam wax ne ni ñaan gu ñu nangu nekk na ci gépp bépp julli bu ñu farataal maanaam boo jullee suba ba noppi bul jóg noonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne asalaamaaleykum foofu boo fa ñaanee yàlla nangu ko niki noonu itam boo jullee tisbaar boo ne asalaamaaleykum ñaanal barab bu ñu nangoo ñaan la boo jullee tàkkusaan noonu boo jullee timis noonu boo jullee gee noonu niki noonu itam bisu arafa yow mu arafa bis la boo xamante ni taxawaay boobu boo fa ñaanee yàlla nangu ko kon ku yàlla yóbboo ci mag taxawaayu arafa loo am ci aaju tudd ko ndax yàlla dafay nangoo ñaan niki noonu itam bu fekkee jullit ñi daje nanu ci barab boo xam ne dañu fa daje di tudd yàlla nee nan barab boobu itam barab bu yàlla di nangoo ñaan la loo am ci aajo dawal ko fa wax ko ba yàlla dégg ko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajee te di tudd yàlla moo xam ci guddi àjjuma yi la wala ci barab bu mënti doon yow na nga fexe rek ba boo amee aajo rek tudd ko fa jàmbat ko yàlla li ki noonu itam weeru koor weeru ñaan la waaw ku ami ajo mën ngay ñaan ci weeru koor mën ngay ñaane ci weeru koor rawatina nag waxtu dog wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yooyu yëpp barabu ñaan la ni ki noonu itam boo jàppee ba noppi bëgg nanu nga ñaan surtout ñaan yi nga xam ne yonent bi tëral na ko ne boo jàppee ba pare mën nga ko ñaan ñaare ñaan yooyu boo ko ñaanee yàlla dana ko nangu gannaaw njàpp boo amee sa soxla ñaanaale ko fa niki noonu itam bisu àjjuma boo jullijee juma bu ilimaan bi dee xutba xutba bu njëkk bi ba toog diggante ñaari xutba yi foofu are bu ndaw boobu ilimaan bi di def diggante boobu yàlla dana fa nangu ñaan kon boo amee aajo nanga ko fa tudd barabu barab la boo xam ne yàlla daf ci nangu ñaan niki noonu itam bisu àjjuma bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi am na fa waxtu woo xamante ni lu fa nit ñaan yàlla nangu ko ci diggante fi ñu jullee tàkkusaan ba fi ñu jullee timis ñu ne nag waxtu woowu mu ngi ci mujj waxtu tàkkusaan foofa la nekk waxtu woowu nga xam ne ku ca ñaan yàlla nangu ko nee na mu nga ci mujj waxtu tàkkusaan wa waaw loola waral sax euh, lu demee ni ki euh, tariqa tijaan di ci def xadaratul juma pour dabu ngëneelu waxtu woowu nga xamante ni waxtu ijaaba la niki noonu itam bokk na ci waxtu yi nga xamante ni yàlla dana ci nangu ñaan xaaj bu mujj bi ci guddi gi boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj bi wax ne ne waxtu la woo xam ne ku am problème bàyyil ba guddi gi xaaj nga julli sa ñaari rakka gën jaa néew soo mënee ñeent baax na soo mënee juróom benn baax na bu mënee juróom ñett baax na waaye nag naa la guddi ñaar ñaar la dangay julli ñaar sëlmal julliwaat ñaar sëlmal fekkee ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jàkkaarloog sa boroom ñaan ko nee waxtu woowu ku fa ñaan yàlla yàlla nangu ko niki noonu itam ki tëddaalee njàpp kooku bu yeewoo ci guddi gi wax neen ne waxtu woowu mu yeewu ci guddi gi bu ñaanee rek yàlla nangu ko kon ku tëddaalee njàpp boo yeewoo ci guddi gi na nga ñaan yàlla balaa nga nelawaat waaw ñaan yàlla balaa nga nelawaat niki noonu itam diggante fi ñu noddee ak fi ñuy liqaamee waxtu waxtu wu yàlla di nangoo ñaan la waaw diggante fi ñu noddee ak fi ñuy liqaamee waaw fi ñu noddee ak fi ñuy taxawalee julli diggante boobu yàlla dana fa nangu ñaan wax na ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la boo xamante ni yàlla na ci nangu ñaan jamono bi taw di wàcc bu taw di wàcc rek ne neen waxtu woowu waxtu wu yàlla di nangoo ñaan la jamono bu taw di wàcc kon bu dee taw ku am soxla na ko jàmbat yàlla nee na boo dee naan ndoxum zam-zam nee na boo amee soxla tudd ko ca ànd ak yéene bu sell nag ndax yàlla dana ca nangu ñaan nee na itam ñi dem màkka buñ dee sànni jamratul jamratu suxra ak jamratul wusta nee na ñaari jamra yooyu nee na danañ ca nangu ñaan kon ku koy sànni nañ ca nang fa ñaanaale niki noonu itam barab bi ñuy wax safa ak marwa ay barab lan yoo xamante ni loo fa ñaan yàlla nangu ko kon ku yàlla yóbbooti màkk ñaari barab yooyu boo amee sa soxla nanga ko fa ñaan ak ci mashaarul xaraam moom itam barab la boo xamante ni dañ fay nangoo dañ nangu ñaan mu mel nii borom bi subhaanahu wa danañu ko gërëm ci bunt bu yaatu bi nga xamante ni ubbil nañu ko mu di buntu ñaan te mu mën a labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu rëy yoo xamante ni mën nañ cee jage àdduna jege ci àllaaxira mu mel ni kon dana ñu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërëm yàlla ba faw di gërëm yàlla li mu li bind ci ay mbindéef di gërëm yàlla li mu jamono yi di gërëm yàlla gërëm gu amul ab ci xéewal gu réy gi mu ñu defal te moo di ñaan mu mel ni am na ñu nga xam ne yàlla dana nangu seen ñaan ndax du ko delloo ñooña bokk na lu ca ñaanu ku ñu tooñ yonent bi nee na moytandiku leen ñaanu ku ñu tooñ parce yàlla du ko delloo daf koy nangu mu ne lu mu yàgg-yàgg itam ñaan ga ñu ngi ko aj ci kaw niir yi bis yàlla dina xëy nangu ko kon aji tooñ ji aji tooñ ji na moytu ndax ki bu ko ñaanalee mu dal ñu ngi moytandikuloo bépp aji tooñ di ndax tooñ olof nee na du gàllaaj mu mel nii boo gisee olof ne tooñ du gàllaaj moo di ne boo xasee tooñ lay gàllaaj ga rekk mooy nga dem ca ka nga tooñ ne ko baal ma waaye boo tooñee nit mu jàpp ba mu sell ne yàlla diw moo ma tooñ kon nag doxale naa la sama digganteek moom ndax mënaluma ko dara ah, yàlla nee na nag ku ñàkk doole te ñàkk kàttan tawat na ma te nag yow mi ma tawat dañ la tooñ kon duma delloo sa ñaan kon nag yow mi tooñ jógal gaaw nga dem baalu ji ndax bu amul rekk bis dina ñëw nga suufee torox lool ndax mbugalu yàlla mooy ñëw yàlla ñu ci yàlla musal mu mel nii ñaanuk wéy jur ci doomam yàlla du ko delloo mukk moo tax way jur yi lu ñu mer mer mer bu ñu moolu seeni doom ndax sa doom loo ko ñaanal rek yàlla nangu ko soo bégee kontaan boo ko ñaanalee yàlla nangu ko soo ko meree ñaanal ko safaan yàlla nangu ko kon nag seytaane dañ ne ci ñaari barab lay duggee nit fi nga bégee bu mu ëpp ak fi nga meree ba mu ëpp waaye nag way jur bu bégee ba mu ëpp seytaane du ko dugg waaw ndax du bëgg doom ya baax le waaye nag fu wuy jur mere seytaane roofu ko pour mu wax lu yàq doom ji moo tax yàlla bëgg ko am sago yonent bi bëgg ko am sago kon wuy jur yi nañu am sago ci seeni doom doonte juba dinanu doonte xama dinanu ba def lu jaaduwul nanu leen tane ndax bu ñu ñaanee rek yàlla nangu ko ñaanu wuy jur ci doom yàlla daf koy nangu niki noonu itam doom ju baax su ñaanalee waajuram yàlla nangu ko moo tax mag ñi daan ñaan yàlla may leen doom yu baax ndax bu ñu génnee àdduna seen doom yooyu di leen ñaanal ndax lu ñu leen ñaanal yàlla nangu ko niki noonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukkee tukki farata waxuma nag show bu ñuy tëgg ca ndar am ñu fi jóge dem di seetaani ñooñu dañoo tukki tukki caaxaan waaye tukki farata mooy commerçant bu jóge fii dem ca Ndar wala dem Mauritanie di wuti marchandise di ñëw kooku tukki farata ci la nekk ndax dafay daan dooleem kooku jamono bi mu nekkee ci tukki bu ñaanee yàlla may ko kon tukkikat yi yéen tukkikatu farata yi di leen ñaan ndax bu ngeen ñaanee yàlla nangu ko niki noonu itam ñaanu ajik woor ku bu ñaanee yàlla nangu ko kon ku am aajo del ñaan loo aji woor niki noonu itam ñaanu ñaanu nit ci mbokk jullitam ci jamono yi fàddu maanaa danga toog ci sa deru ci sa sijaada di julli sa xel dem ci sa mbokk sa mbokk jullit nga ñaanal ko yàlla yàlla dana ko nangu niki noonu itam ñaanu ilimaan bu maandu ilimaan bu maandu bu ñaanee yàlla nangu kon nag addu'a fi hadihi al awqaat wal amaakin tuxassu bi madidin bi madidi inaaya maanaa ñaan ci barab yii ak ci waxtu yii dafa am ak jagle bu ci yàlla def yàlla moo wax ci alquran ne wa ida saalaka ibaadi fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daaci ida daani yonent bi la yàlla wax ne ko sa jaam yi buñ ma laajee sori wu ma leen sori wu ma leen mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ay ñaan yu nga xam ne nit ki bu ñu ko jibaree sax bu ñu ko jibaree sax su ñaanee ñaan yooyu mën na caa wére waaw wax nañ ne juróom-ñaari xobi si déem juróom-ñaari xobi si déem yu vert nga tëcc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kook ndox jàng ca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض man dha alladi yashfau indahu illa bi idnihi yaclamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuxituuna bi cheyin min cilmihi illa bima shaa wasica kursiyuhu alsamawati wal ard wala yauduhu xifduhuma wa huwa alcaliyu alcazim di ayatul kursi soo noppee nga teg ca wa awxaynaa ila muusa an alqi casaaka fa ida hiya talqafu maa yafikuun fa waqaca alxaqu wa batala maa kaanuu yacmaluun fa xulibu hunaalika wanqalabu saaxirin wa ulqiya saxaratu saajidin wa qaalu aamannaa bi rabbil caalamiin rabbi muusa wa haaruun wa qaala fircawnu ituunii bi kulli sa bi kulli saaxirin caliim falammaa jaa assaxaratu qaala lahum muusa alquu maa antum mulquun falammaa alqaw qaala muusa maa ji'tum bihi sixru inna allaha sa yubtiluhu inna allaha la yuslihu amal almufsidin wa yuxiqu alxaq wa yuxiqu allahu alxaq bi kalimatihi walaw kariha almujrimun qaalu ya muusa imma an tulqiya wa imma an nakuna awala man alqa qaala bal alqu fa ida xibaaluhum wa cisiyuhum yuxayalu ilayhi min sixrihim annaha tasaa fa awjasa fi nafsihi xiifatan muusa qulna laa taxaf innaka anta al aala wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sanacu innama sanacu kaydu saaxirin wala yuflixu saaxiru xaytu ata fa ulqiya saxaratu sujjadan qaalu amanna bi rabbi haaruna wa muusa bismillahi arrahmani arrahim qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun wala antum caabiduuna maa acbud wala ana aabidum ma abadtum wala antum aabiduuna ma aabud lakum diinukum waliya diin bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani irrahim qul audu bi rabbil falaq min charri ma xalaq ila axirihi bismillahi arrahmani irrahim qul audu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min charri alwaswaasi alxannaas alladi yuwaswisu fi suduri nnaas min aljinnati wannaas bi may wax qul audu rabbil falaq dama ko wax ne ba ca mujj ko ila axirihi mooy ba ca ko kon nga jàng falax jàng naas gannaaw boo jàngee nag aaya yii ma fi jàng yépp nee na nga bu neexee nga jàng ko benn yoon bu la neexee nga jàng ko ay yoon ñetti yoon wala juróomi yoon jàng bu tóol nee na nga tafli ko ca ndox ma naan ca ñetti yoon sangoo la ca des nee neen ku def loolu boole ko ak euh, xobi siddéem yooyu loolu nga tëccoon ci xoj xobi siddéem juróom-ñaari xob yooyu nga boole ñaari xeer tëcc ko ba mu mokk nga def ko ci ndox jàng aay yi ma ma ci wax nga tafli ko ca ndox ma naan ca ñetti yoon sangu ci bu fekkente ni dañ laa jibar yàlla dana ko wéral ci kàttanam yàlla dana ko wéral ci kàttanam ak mbaaxam mu mel ni kon képp ku nga xamante ni e, am na loo ragal ci sa yaram ñaana ngoog goo xamante ni ñu ngi ko tibbee ci sunna ñu ngi ko tibbee ci alquran ak sunna wax ne ñaan gi e, nattu nanu ko def neen expérience bi ay yooni yooni yoon waaye gis neen ne ñaan gu am njariñ la kon tabaarakallaahu e, yàlla ñu ko baaxe kon yàlla ci yàlla def barke bu jullit bu ko jëfandikoo yàlla def ci tawfiq mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa ci ak mbaaxam la jotalee ba message bi jàll daj fépp ba ñëpp mën a jariñoo moo tax ñu ne adduaa yanfau mimma nadal wa mimma lam wa mimma ñu ne ñaan dana jariñ ci jàngoro bi wàcc ci yow musiba bi wàcc ci yow boo ca ñaanee yàlla mën na la koo teggil musiba bi la dëtmal itam boo ca ñaanee mën naa bañ a yegg si kon ñaan am na solo moo tax yonent bi ne laa yaruddu alqadaa illa adduaa mu ne ab dogal ñaan rek a ko mën a fànq ñaan rek moo ko mën a fanq mu mel ni nag e nit nag su dee ñaan te amul kóolute ca la muy def ah mën na caa bañ a jariñu nit bu dee ñaan daf cee am kóolute am lu ko wóor waaw ndax su fekkente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul kàttanu téye lu jaasi ja ñaw ñaw ñaw ñaw doo ci mën a dagg sax wëñ waaw doo ci mën a dagg sax wëñ kon nag ñaan dana am solo waaye ki koy def ñàkk solo waaw kon nanu fexe ba am li ñuy tuddee tabaarakallaahu pas-pas ak kóolute ci yàlla ñu ne itam képp koo xam ne xëy na jàng bismillahi alladi laa yadurru maa asmihi shay'un fi l ard wala fi samaai ñetti yoon jàng ko suba jàng ko ngoon yàlla mën na laa musal ci ay yu bari niki noonu itam jàng ayatul kursi gannaaw julli gu nee na loolu itam dana musal nit ki ci ayul ayul lépp luy gaañe jàng ko itam ci waxtu nelaw baax na léemoo ko léemoo ko sa njaboot baax na jàng ko itam suba jàng ko ngoon baax na niki noonu itam jàng lixlaas ak ñaari muawizatay nii te moo di qul a'uuzu bi rabbil falaq ak qul a'uuzu bi rabbin nga jàng leen ñett yoon neena ci suba ak ngoon ak jamono bi ngay nelaw baax na pour léemaay neneen itam ku bëgg yàlla musal la boo xëyee mën nga jàng laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul xamdu wa ala kulli cheyin qadir nga jàng ko téeméeri yoon nee na musluwaay bu rëy la boo koy jàngee tafli ko ci sa yaram génn yàlla mën na la musal ci bëccëg boobu lu bon du la ci dal kon tabarakallahu mbokk yi duñu dañ di sant yàlla di ko gërëm lool gërëm gu amul ab ci xéewal gi mu ñu defal mu di ak ñaan kon loolu lañ leen indiloon ci li nga xamante ni moo màcc ci wàllu googu di wàllu ñaan ak la ci ayu aju ci xéewal ñu gërëm mbokk yi nga xam ne bind na nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Géy nekk ca Padoua Builders di jaal itam boroom këram di Abdoul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju baax ju fi jóge Euh, ñu ngi gërëm madam Diop Aïda Aïda Diop nekk ci assemblée nationale ñu ngi koy gërëm di nuyu itam du Soxna Guèye nekk ca 24 allée Papa Guèye Fall di jaay katu maanaam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mouhamad euh, Ba di commerçant nekk ca Rufisque di suñu xarit di nuyu itam soxnaam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nekk ca pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak rakkam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di doom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamante ni mooy waxtaan ci rajo bi ci tontu bataaxal yi di nuyu itam madame Kader et Fatou Kiné nekk ca immeuble Abdoul Ahad Mbacké di nuyu itam Birane Mbaye e Rone Jaxaaw nekk ca marché Sam di nuyu itam Baye Dieng ak Cheikh Dieng di nuyu euh, Awa Ndiaye nekk ca cité Kër Yaraax numéro 56. di nuyu bint Diouf nekk ca pikin ginnaaw raay di nuyu itam euh, jëkkëram Lamine Baro. Euh, di nuyu itam astu dem nekk ca ñaari tali tableau taba bata di nuyu oustaz Mouhamad Fall. di nuyu Njonge Fall di jàngalekatu arab Dakar ci pikin Medinatul Munawwara di nuyu itam Marème juuf nekk ca isin ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Si nekk ca parcelle eh, unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penn Mbay ak Jeewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nekk ca marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yacine Diallo nekk ca usine ñaari tali numéro 722 euh, tabarakallahu mbokk yi euh, dafa mel ni lettres yi dafa bare bare bare ba tabarakallahu du ñu def rek lu dul di ko jukkat ndànk-ndànk euh, tabarakallahu di nuyu nag soxna si di eh, soxna Mbàkke nekk ca Sicap ñu ngi koy nuyu di ko sant kon seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmed Samb ci seen émission kalimatul xaq wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa